Setsima TV l'actualité un temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te wóor chers internautes ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu Setsima TV comme liñ koy faral di defee saa su ne eh, di indi seen actualité di waxtaan ak yéen ci tolluwaay réew mi tey nag ñu ngi am benn eh, PDG eh, AGEP xam naa sax dina ñëw ci signification bi muy monsieur Daouda Thiam ñu fas yéene sëkk ak moom waxtaan ak moom lépp lu jëm ci wàllu association bi nga xamante ni moom la jiite waaye sax ak tolluwaay réew mi ak actualité politique bi nga xamante ni gis nañ ni boobu ba léegi dafa nekk en phase kon monsieur Thiam Daouda ñu bàyyi la nga nuyoog sunu internautes yi. waaw salaamaaleykum <clears throat> mbokk yëpp yi seetaan Setsima TV ci émission bi nga xam ne Sénégal ak àdduna gépp a koy seetaan. seen bi nga xam ne wër na àdduna mhm. ñu ngi leen di nuyu di nuyu aussi Ibrahima Faye yow mi def émission bi mhm. di nuyu sa man bi nga àndal mhm. di nuyu wax àdduna bi yëpp ñaan yàlla aussi di euh, premier safar bi ñuy jublu suba ci àjjuma ji ñaan yàlla may ñu ci ay yokkute ba yëg ko ndax ah. sëñ Tuubaa ko liggéeyal mu fay la amiin jërëjëf xam naa nuyoo bi moom am na solo ndax euh, ku wax màggal wax murit moom wax euh, teeru teeru bi ñuy war teeru safar bi Euh, wax naa ko sànq sama njël benn wax euh, nga jiite nag association bu ñuy wax AGEP. Mhm. lan mooy AGEP. waaw sëñ Ibrahima AGEP euh, benn kuréel la. Mhm. bu lëkkalee ay jeunes chefs d'entreprise. Mhm. moo waral mu tudd AGEP. association des jeunes entrepreneurs de bâtiment. léegi jeunes chefs d'entreprise yooyu ñoo dajaloo. nekk benn say fa seen participer. xeex ci développement Sénégal. participer ci yëngatu réew mi ndax dañoo gis ne ASEP ku ci nekk ak sa doole nga yoroon chef d'entreprise bu nekk da nga nekkoon ci sa roq di liggéey. Mhm. ñu jàpp ne mbooloo mooy doole. looloo waral ñu former kuréel gi tudde ko ASEP. Mhm. di leen gërëm nag membre ASEP yëpp. Mhm. parce que du du du daraja bu mu leen ëpp du dayoo bu mu leen ëpp ba tax ñu jiital ma. dañ ma jiital parce que dañoo am ci man yaakaar. donc mais dama ànd ak ñoom ñëpp yen bi. ndax xam naa ne yéen bi yéen bi diis na trop. damay àndandoo ak ñoom ñëpp ci yéen bi ndax yéen bi diis na trop. vraiment di tàllal loxo aussi Sénégal àdduna gi yëpp ñu jàppale jeunes entrepreneurs yi nga xam ni tey. dañoo dajaloo fas yéene bokk ci développement réew mi. bokk na si suñuy mission aussi ASEP. ñu fës yéene. balaa ngaa ñëw sax si mission yi xam naa ah. dinañ ci dinañ ci ñëw mais lan moo la inspiré ba nga ba nga taxawal association boo noonu parce que wax nga ni ay jeunes entrepreneurs lañ. maanaam lan moo la poussé lan moo la motivé ba nga taxawal loolu noonu. waa xam nga ASEP dañoo toog waxtaan nagam ñun ñu bokk kër gu ñuy euh, euh, lu ñu bokk di yëngu ci wàllu bâtiment mhm. souvent dañuy am yenn difficulté yi. effectivement donc ñu jàpp ne mbooloo mooy doole. Mhm. buñ doolee suñuy doolee boole suñuy xam-xam ndimbal de solidarité bi dina am suñu biir. Mhm. ndax liggéeyu entrepreneuriat yaatu na. ndax tabax bi dafa yaatu Sénégal. effectivement ku ci nekk mën nga am loo jariñoo léegi bañ dajaloo ñu xalaat ni ñun waruñoo yem kese si jàppale suñu bopp suñu biir waaye war nañoo jàppale ndaw yi. effectivement war nañu mën a dimbali ndaw yi. Mhm. ci ci wàllu liggéey. Mhm. naam ñi fekk na ñu koy def individuellement ku ci nekk da ngay embauché ay nit jël ay ouvrier di leen jox euh, à la charge. Mhm. kon ñun ñi ngi ci euh, loolu. mais ñu ne buñ boolee suñu doole dinañ dina mën a xeex. dina mën a jàppale état ci xëyu ndaw yi muy xeex. ndaw yëpp dina am fu ñu casé wu. effectivement aussi ñu jàpp ñu xeex li nga xam ne tey mën nañ ne mi ngi bëgg a gasaxal suñuy ndaw. ndax am réew ku ko wax ne ndaw. tey suñ demee ci wàllu mbëkk mi xew léegi. foo tourné. waaw euh, mhm. doguma la sax dinañ ci ñëw sax ba tey. Mhm. waaye comme ni nga ko waxee nga ne dafa nekk ay jeunes entrepreneurs. Mhm. est que mun nañ xam secteur d'activité yi ko composé. parce que parce que wax nga ko léegi ne nga batiment la. wala ci bâtiment rek la yem. waaw ko kii kii di entrepreneur xam nga sëñ Ibrahima bâtiment uh-huh. mooy nekk moo nekk secteur boo xam ne hmm. dafa bari ay corps d'état yu ko seq effectivement parce que si biir batiment di nga fekk menuisier bois voilà di nga hmm. fekk menuisier métallique hmm. di nga fekk menuisier aluminium di nga fekk charpentier di nga fekk plombier fekk euh, électricité di nga fekk maçon bi ok di nga fekk ferrailleur bi di fekk coffreur bi ah peintre bi carreleur bi donc ñu jàpp ne li ñu fi limal yëpp ëpp na fukki corps d'état yoo xam ne ñu ci mhm. dañu jàpp ne corps d'état yooyu composé bâtiment buñ ci vayee dox ci xeex ci rayante ji ndaw yi bari dinañ am fuñ kaajoo di liggéey mhm. di am fu ñu jàpp ba seen xel dina dal ndax mhm. ndaw kan moo yor réew waaw juñu nga ko sànq di wax wàllu mbëkk ma gis tamit seen slogan mooy euh, ànd xeex mbëkk mi lan moo la motiver ba nga jékkee-jékkee dugg ci Euh, slogan boobu noonu lan moo la motiver. waaw mais xam nga dama di ndaw. Mhm. donc jaar ci métier. jàng métier xam ko. Mhm. di ci góorlu ba taxawal ci société. Mhm. entreprise. ma jàpp ne peut-être ndaw yi nga xam ne dañoo topp mbëkk mi. ñi ci ëpp. xëy na ñàkk nañoo waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo leen jiitu ci yenn domaines yi. wala ñu ñàkk am ñu leen gunge. pour jàppale leen. Mhm. pour que ñoo ñu mën a créer seen i propre entreprise fii ci Sénégal ba duñ xalaat dem daan dañuy dugg ci géej gi da xamuñu la leen cay fekk. Mhm. la mu den motiver nag mooy sëñ Ibrahima sama yaram dafa daw chaque fois da ngay dégg ñu naan trente morts. Mhm. vingt morts. ñii des nañ ci géej gi. dañ ña koy def ñëpp seen âge boo xoolee vingt cinq ans yàpp trente cinq ans. effectivement ñëpp di ay ndaw. dañu Sénégal ndaw yëpp bu ñu bu ñu euh, euh, naasaayee fan lañ fan la réew mi di jëm. sama xol da cee tooy ci loolu. kon da jug pour éradiquer lool noonu. waaw xeex la comme ni nga ko waxee éradiquer boobu nga wax noonu lañuy def dañ koy wàññi ndax mën nañoo bañ a xeex lépp. est-ce que <laughs> est-ce que dina yomb. waaw Ibrahima ci àdduna. est-ce que dina yomb ndax am na organisme yu bëree bëri yoo xamante ni jug nañ pour loolu te gis nañ ba léegi loolu noonu dafa dafa dafa dafa continuer xam nga nagam njaa ngi jàpp ne ndax dina yomb rek. <laughs> waaw euh, bu fekkoon dafa yomb duñ duñ ci dugg. Mhm. parce que lu yomb ña koy mën a def bari na. Mhm. ñun dañoo bokk ci ay ndaw yu taxawal fii Sénégal entreprise. ñu gëm ne ñu relever nañ défi boobu nga xam ne moom lu ndaw yi gëm mooy tukki. ñu gëm ni aussi suñuy nawle lañ suñuy morom lañ buñ àndeek ñoom toogandoo ñoom waxtaan ak ñoom même buñ teyee cent la xanaa au moins dinañ am cinquante yu ñu déggal. ba seen xel ñëw ci projet buñ leen di tegal. loolu lañ ci jublu ndax dafa am loo ngeen teg seen loxo parce que tamit nit ki doo ko tere ne ko bul dem ci mbëkk bi te doo teg dara ci loxom waaw xam nga lan ngay teg ci loxom xam nga wolof moom lu mu wax leer na di napp di jox nit ki jàngal ko ni ñuy nappee daa gën mhm. suñuy plan d'action bokk na ci waaw day fekk nag tamit ki koy jàngal mën napp waaw waaw parce que li <laughs> jàpp nañ ne ñun même bu ñu mënul napp it am na lu ñu ci xam parce que créé nañ fi entreprise ba ciy góorgóorlu <laughs> ndax ñu euh, ñu séq aseb yëpp ñoom ñëpp ay chef d'entreprise dañ mhm. ku ci nekk tey yaa ngi fay ay nit salaire donc ñun jàpp nañ ne même buñ napp bi mokkulit am na luñ ci jot a mën mhm. lañ ci jot a mën buñ ko partagé ak ndaw ñi jàpp naa ne dina leen jariñ mais li ma lay indil foofu mooy euh, c'est pas que aussi nañ nangu ne dëgg la état mi ngi fii mooy jàppale population mooy jàppale mais dafa am loo xam ne nit ki en personne moo koy utal boppam mhm. muy lan muy lan mooy engagement ambition da ngay engagé wu ci benn affaire am ambition bi des yàlla dimbali la. certes ay moyens baax na moyen mooy lan fexe boo dee samp tey atelier soudeur métalique am poste boo suudee. am mël am signol am yooyu. ñu jàpp ne suñuy plan d' action ñun ndaw yi nga xam ne yoon na suñuy entreprise. di fas yéene dajale suñuy cotisation. di doxal ab kuréel. jàpp nañ ne dinañ créer ay mécanique yoo xam ne dinañ jàppale ndaw yi ku ci nekk am ci loo. jàpp mais bu buñ ci amee dimbalu état aussi da doon gën. Mhm. ndax day dina yomb. mën naa la jox exemple jeune bi bëgg a créer atelier soudeur métallique. man ma nekk chef d'entreprise ma gagné benn marché war ko jox porte yi ak fenêtre yi ak charpente bi. mais mën naa ko ne li ma lay fay 30 pour cent yi dama koy jël def ko ci matériel atelier. dama ko ciy def ci matériel atelier. Mhm. li ci des moom laa lay jox ñu liggéey chantier boobu. kon da ngeen di xaar état daal dugal ci loxoom. waaw mais bu ko dugalee moo gën mais bu ñu ko doon xaar duñ créé lii ba commencé tëral une plantation pour def benn tournée nationale. Mhm. mais bu ci dugalee loxoom dafa gën. parce que liy metti nii yëpp tey xale yi bu ñu bëggee dem gaal ga état lañ naan dem leen seeti leen dem leen jëli leen fan lañ nekk. Mhm. ñoom ñooy génn di communiquer. donc ay ndaw bu ñu dajaloo pour jàppale leen ci loolu donc man jàpp naa ne lu baax la. ño ñoo ci war a jiitu ñëpp. dëgg la parce yemuñu ci état rek. Mhm. kilifa diine yi ñëpp dañ leen di seeti waxtaan ak ñoom. Mhm. bàjjenu gox yi dañ leen di seeti waxtaan ak ñoom ndax jàpp leen ni ndaw bu dem yaayam ma nga fa. Mhm. wala ñi ci ëpp. waajur yi góor yi noonu chef de quartier bàyyiwuñu kenn. pour àndandoo ak ñoom ci xeex bi ba wàññi musiba bii nga xam ne mi ngi bëgg euh, yàq suñu réew. léegi yan yan proposition ngay ngay joxe parce que xam nga wax naa ko sànq nee naa la xeex mbëkk bi dafa métti ndax. am na ay danger am na yu bëree bëri yu ci nekk immigration clandestine bi gis nañ sax ay organismes yoo xamante ni internationaux yoo xamante ni jógoon nañ sax pour loolu noonu mais gis nañ ba léegi nii chaque année da ngay gis ay vague di am maanaam ban proposition ban proposition ngay jox askan wi ngir ñu mën a euh, moytu loolu noonu wala ban loxo nga leen di tendre ngir ñu mën a rejoindre AGEP bi nga xamante ni yow moom nga jiite tey. waaw loolu li ma la ci indil mooy. comme ni nga ko waxee organisation internationaux yi jéem nañ ci ba pare échec. waaw moo tax moo tax sànq mais la est-ce que dina yomb. moo tax échec mais dama lay indil benn baatu wolof bu am solo. Mhm. xel pour sa muréer la. xale da koy for mag da koy for amaana suñ kuréel gu ndaw gi di doo ko tàmbali wala jëm sa kanam yàlla mën na def mu relever défi. mais tamit bopp bopp bu dofee tamit du ko mën a for. waa d' accord yooyu <laughs> loolu loolu yëpp euh, mën nañ ko nangoo bon liñ ci indi mooy comme proposition. Mhm. ndaw yi jàpp naa ne dëgëruñ bopp. te jàpp naa ne ñi ngi xalaat mhm. dama gëm ne bu ñu waxtaanee ak ñoom àndandoo ak ñoom si suñuy propre entreprise ñun ñu nekk si ASEP fa la ñuy jiitee ndax mbay sax yow tànk mhm. bo biñ biñu jeetee ay jeunes bu ñu kaw Kaolack toog ak yi waxtaan ak ñoom dañuy seet électricien yeeg maçon ya fa nekk ñu fexe ba ñun ñu leen di dugal suñu suñu kii suñuy euh, suñuy propre chantier mhm. di profité si ça di lancer benn appel à l'État pour mu xoolaat le code des marchés publics Euh, en mille 2007 2008 2009 ba 2010. code des marchés publics dafa permettre woon bépp ouvrier local nekk ci àll bi da nga daan gis sa bopp ci marché public. parce que dañoo décentraliser woon marché yi. mais état ba mu ñëwee changé euh, code des marchés indi DRP. yokk euh, waa yokk montant yi amatul appel d'offre normal moom état bu ko seetloo ci ay démembrement yi nekk ci dans les gox-goxaat. Mhm. muy IPRES caisse de sécurité social ak yeneen service yi. amatuñ yenn ressources yi dugg si ñoom parce que entreprise locale yi fayatuñ taxes yi. Mhm. li tax fayatuñ ko mooy amaguñ fuñ soumissionné. mënatu ñoo bokk ci euh, compétition marché yi. Mhm. moo tax foofu dañuy profité ñun lancer appel à l' état. que du politique. code des marchés publics aussi quoi. est ce que du politique li ngay wax nii ndax gis nañ dégg nañ fi ñu bëree bëri ñu ne état buy joxe marché dem nañ sax ba gis ay marché gré à gré. moo tax ma ne est-ce que du du du politique bi ko. waaw non xam nga marché gré à baat bee moo moo xaw a tegginiwul <laughs> mais marché entente direct lañ ko tuddee. ah mais mais loolu waaw waaye nag gré xam nga oh. <laughs> ku jóg pour saboter wala pour wax baat bu tegginiwul bala neexee nga ne gré gré. mais entente directe lañ ko tuddee. Mhm. si côté marché dafa am loo xam ne entente directe la. Mhm. am loo xam ne DRP la. Mhm. am loo xam ne DRP ouverte la am loo xam ne appel d'offre la. da code bi dafa prévoir yëpp. c'est que nag li war a léegi entente directe bi bari mooy montant ñu ko yóbbu par rapport ak bi mu nekkoon moo war a léegi ku yore euh, alalu askan bi di joxe marché su la neexee seet Ibrahima Faye sa xarit la nga woo ko jox ko ko mais code bi bu nekkoon fa mu nekkoon yooyu yëpp du mën a am ba cinq millions dañ koy compétir ku ko mérito gañee ko donc nag loolu laa gis quoi léegi euh, état bi donc kon da ngeen xaar mu dugal seen mu dugal ci loxoom xam nga sëñ Ibrahima waxaat naa la ko nee la. Mhm. ñun ñu ngi suñu yoon di dox. Mhm. lu leen ci fekk ngeen xam ne moo leen fekk ñu xam ne gunge nañu. Mhm. lu ñu fekkul it ñu ba ko. mais jàpp nañ ne combat bi ñu nekk nii mëne ci ASEP. état moo ci war a njëkk a jàpp. parce que boo xoolee ñi nga xam ne ñoom lañ amal partenariat yëpp. ay démembrement wu état la. muy de la jeunesse. gis naa ko. ak mhm. bàjjenu gox yeeg. mairie yeeg yooyu yëpp. Mhm. ci état lañ dépendre. Mhm. donc état moo ci war a njëkk dugal loxoom. ñun la ñu war nañ ko def. danañ dem vers les autorités. contacter leen waxtaan ak ñoom wax leen ci lu ñu nekk ak li fañ bëgg a jëm. ku ci ànd ak ñun bisimilah ku ci ànd ak ñun du tee ñun suñu yoon ñun ay ndaw lañ. nu ñu def ba taxal suñuy entreprise dajale suñuy fonds. di liggéey mën nañ ko def ba réussir li ñu bëgg a samp ndax mhm. Sénégal la ñuy liggéeyal suñuy ndaw la ñuy xeexal ndax suñuy nawle lekk waaw mhm. jërëjëf internautes yi euh, tey ñu dalaloon fi nag euh, monsieur Daouda Thiam nekk euh, président AGEP di association des jeunes entrepreneurs du du bâtiment wala domaine batiment mhm. monsieur cam Daouda association bi kañ la judd ak ki ci bëgg adhérer nan nan lay def pour adhérer ci association bi mi ngi juddu ci 2023 bi yàggul dara ci ay weer. Mhm. ku ci bëgg a wu am na ay fiches d' adhésion ñu teg. Mhm. am na carte de membre. Mhm. carte de membre yi dix mille francs lay jar. nga ñëw jënd ko adhéré wu indaal sa photo sa carte su fekkee chef d' entreprise nga da indi sa registre de commerce ak sa NINEA. fekkee dafa nekk société SAR. dañ lay laaj statut entreprise bi. parce que démembrement lu boo xam ne ñun ñu ko yor. dañoo bëgg képp ku nekk suñu kuréel la nga nekk ñu la koy jox ci wàllu liggéey bu naree dëgër ñu ànd ak yow xeex la ba nga am ba nga am ci réussite mhm. d'abord solidarité boobu moo nekk suñu biir mhm. beneen bi ci teg mooy bëgg nañ képp ku nekk membre ACEP fu ñu la tuddee ñëpp ne alhamdulilah mhm. siège bi fa la nekk chaise bi mi ngi parcelle cité Damel cité Damel baax na jërëjëf sa euh, monsieur Thiam Daouda xam naa ne du ñàkk ñu laal côté politique. ndax euh, ku wax euh, ci lii ngay yëngu. Hmm. wax tamit li nga xamante ne moom mooy côté politique. ndax hmm. actualité politique bi gis nañ ko. Hmm. gis nañ le président de la république ba léegi nii gis nañ ni waxagul kan mooy kan la samp ñu gis ni oppose opposant bi nga xamante ni moo ko gënoon sonal mu ngi ci prison bi. ba sax dem ci grève de la fin bu extrême. ak ki nga xamante ni mooy les de cas muy xalifa Sall ak Karim Wade ñu waxoon dañ leen ni delloowaat seen i ak ak seen yelef nan nga jàngatee le président de la république en tant que président bi nga xamante ni tey bokkul ci élection yi mu war a samp ndëndëm toog boobu ba léegi ñëpp di di di xaar pour maanaam xaar boobu noonu lan moo ko waral selon toi. waaw waaw de façon man dafa am lu ma gëm li ma gëm mooy ci politique. Euh, ku ci nekk ak stratégie ak na ngay doxee mais li xew ci réew mi tey man dama koy mettilu ah waaw parce que li tax ma koy mettilul mooy mënuñoo dem mooy de wala six mois des élections xamuñu yan daa ñoo bokk ci élection yi mhm. fekkee dañuy wax démocratie foofu lañu war a njëkk taxaw xool suñu bopp mhm. leneen li ci tegu mooy sur la question de Ousmane Sonko c'est un frère. bul jàll mais li nga wax garaaw na de waaw ayca bisimilah li nga wax garaaw na parce que man mënuma comprendre. Mhm. nga bokk ci benn parti. bokk ci benn mouvement. Mhm. en dehors en dehors li nga doon sa euh, récemment. bokk ci parti pour la vérité dëgg moo wóor. Mhm. nga nekk fa un membre clé. nekk sax coordonateur bokk tamit ci mouvance bi. nga bugg waxee nii lii garaaw na de. waaw mais xam nga Ibrahima ci àdduna booy dox. nga amoo sa liberté. jarutul ngay exister si àdduna. li may wax seet daaw de ci am c'est pas dëgg moo wóor. c'est pas hmm. n'importe li ngay wax nii graaw na de c'est Daouda Thiam qui parle en tant que homme politique. dañ laa yónni wala nekk ah? citoyen sénégalais non may ma nekk citoyen sénégalais. est-ce que dañ laa yónni laa wax. man ak man aw fi ma toll sama. àdduna est-ce que dañ laa yónni fi ma toll sama àdduna. Ah. weesu naa fu ñu may yónnee ci may waxal ñit man li may wax ça concerne Daouda am responsable politique ah acteur de. ci réew mi ñaawlu naa ko parce que boo duggee ci kaw Ousmane Sonko. Ousmane Sonko c'est un frère. sénégalais la ñuy sénégalais. ci réew mi la dëkk ñu dëkk ci réew mi même bu dee benn fan la servir na ko Sénégal liggéeyal na impôt domaine. donc bu dee jullit mooy jullit yàlla teg ko natt bi dama koy ñaanal yàlla teggil ko ko. la tax natt ba am ak na mu amee ak la xew dama ci dugg parce que nekkuma au fond. mais mën naa koo ñaanal yàlla teggil ko natt bi ba pare demander ko ñaan ko Ousmane en tant que frère Sonko en tant que ex président parti Pastef nañu. bàyyi xiifal gi. déet li nga wax garaaw na de ex nga wax de. waaw dama gis si euh, ñu ne Pastef dañ ko désoudre dama gis ne ñu ne Pastef tëj nañ siège moo tax ma ne ex. Mhm. kon amatul. Mhm. donc dañ koy ñaanal mu bàyyi grève de la faim bi. Mhm. bàyyi xiifal bi. li ko féliciter aussi. Ousmane Sonko. parce que réussir na loo xam ne. réussir na loo xam ne ci politique. man su ma sañoon réussir ko. bu bu keneen sañoon réussir ko mooy au moins convaincre na benn pàcc ci sénégalais yi. bañ gëm ko. Mhm. kon loolu réussit la. beneen bi may ñëw ci wàllu politique pour tënkal la. waaw li xew benn bokk yaakaar ba tax Macky Sall mënuñu am candidat ba léegi. Mhm. man dama jàpp ne waa APR ñoom ñoo yëpp mouvement présidentiel bi ñoo yëpp kon benn bokk yaakaar. Mhm. parce que boo xoolee candidat yi dégg yëpp ñuy réclamé wu. ñëpp c'est l'APR. ñoom ñëpp APR lañ. dañu koy réclamé yëpp Amadou Ba gañewul gox benn gox. a ah bon amuloo ah ban élection locale nga dégg ñu la dafa gagné amul. kon yow kan ngay proposé. non pas proposé rek may may ma wax la li ñuy laaj nañ ko ba. dañu ñëw di dañu ñëw légitime yeneen yeneen parti yi nekk biir Benno Bokk Yaakaar dañu ñëw dañu ñëw légitime dëgg moo kon yow da ngay da ngay. affaire en cause euh, président bi. non dama ne. APR dente légitime dëgg moo wóor. déet boo waxee APR boo waxee APR boo waxee APR nag Macky Sall ngay wax. bu fekkee li ngay wax ñeme nga ko. da koy wax je parle di man du ma réew. ndax ah. mooy suñu njiitu réew. ah la ñuy wax nag dañ koy wax. politique APR. Ah. APR ñoom ñuy réclamer ay candidats. ci profil. ci profil. ci biir benn bokk yaakaar am na ñu leen gën profil fuuf. comme kan. mais exemple comme Pape Modou Fall moo leen gën profil. mais Pape Modou Fall bu mu gagné fan la fan lu mu gagné. mais Pape Modou Fall mës ta dem élection euh, élection nekk candidat dafa gëm coalition benn Bokk Yaakaar gëm dynamique bi ànd ci ci liggéey. waaw léegi léegi ki nga xamante ni moom. da ko gëm pourtant te gagnéegul dara. léegi te am ñoo xamante ni ñoo ko ëpp responsabilité pourquoi. pourquoi mënoo mais affaire de responsabilité en matière de politique. en matière de politique mbooloo la. ñi la gëm mbooloo la Pape Modou Fall dafa jiite benn coalition. li nga wax nii c'est dangereux ah non da nga may may ma ñëw. mais li nga wax li mu wax nii c'est dangereux ah coalition kon da nga bëgg a wax ni Amadou Ba amul amul Ba fan la gagné. mais Daouda li nga wax nii est-ce que est-ce que est-ce que mën nga confirmer li ngay wax nii. nga confirmer ne Amadou Ba wax ma yow ban élection la Amadou Ba gagné Sénégal. mais Amadou Ba moo ko responsabilité. il est ministre il est le premier ministre. am na ay am na ay nombre tànk yu bëri bëri. mais nekk premier ministre daa tax Moussa gagné président Sénégal. côté responsabilité la ñuy wax responsabilité Idrissa Idrissa Seck euh, Amadou Ba dafa responsabilité. côté responsabilité la dama ne bu ñu xool responsabilité nañu xool légitimité. ñi nga xam ne ñoo gën a taxaw am mbooloo politique benn Bokk Yaakaar coalition bi yàgg nañ ko wax coalition bi dañ ko tas tudde ko beneen beneen coalition benn Bokk Yaakaar dee na. c' est ça la réalité. li nga li nga wax le président nañu tànnal un candidat mënu ko mu bàyyi euh, euh, lamb ji ubbeeku comme neex samp sa mbër. mais ay nit mënuñoo toog jox la jox la seen kàddu jox la seen responsabilité a tant que président en tant que président de la coalition Benno Bokk Yaakaar mais jusqu'à présent ñun xamuñu kan la ñuy àndal li ngay wax a fekk mais amul lu ma ci mën a fekk baa xam nga li la ci mën a fekk na sama parti dàkk li ma gëm président de la république nañu tàndal candidat baax na damu xool ndaw yi nga xam ne dañoo engagé wu di ko xeexal di xeexal coalition bi mu jox leen ay responsabilité mënoo yor dama ne la parti yi dañuy wax rek parti socialiste amul fukki nit AFP amatul kenn bu leen neexee nañ dem ci gox goxaat yi ku fa dëgg moo war fekk rey la ba ci ñoom seen i propre siège seen i seen i dëkk mhm. léegi ñu bëgg a jël parti yoo xam ne dee nañ màgget nañ di ko teg ci ay parti yoo xam ne dañoo judd ay xale yi seen loxo set ah mais loolu teguñu ko fenn mais li ngay wax nii ba xam nga ni dafay yàq na benn bokk yaakaar waaye ma ne la benn bokk yaakaar nañ ko tas yow yow yow bokk nga coalition yow bokk nga ci ñi ñi ñi yàq benn bokk yaakaar waaw parce que bu fekkante ni dama ne la benn bokk yaakaar nañ ko tas nañ déglonte ma relance la nañ ajo bismillah nañ déglonte ma relance la parce que su fekkante ni yow da ngaa bokk ci mouvance ku ne xam ne ni parti politique dafa am nu muy doxee am charte waaw le président waxagul yow nga génne def bii sorti ba pare di ko ci dénigrer baa xam nga li la ci mën a fekk le président nga njëkk dénigré baa xam nga ni baa xam nga li la ci mën a fekk xam nga dama la wax benn affaire dama ne la xam nga li la ci mën a fekk dama ne la man bokkuma ci ndaw yi nga xam ne dañuy teggi war ma kilifa déet yarewu ma ko mhm. yarewuñu ma ko doxewu ko duma ko doxe man je la que Benno Bokk Yaakaar waa APR yi rek laa naan ñoom ñooy ay candidat ñoom nañu toog de respecter soit président muy du Ba Daouda jàlloo Aly Ngouille léegi ak keneen ku mu mën a doom ñu jëw ci profil yi léegi bu ko président bu tànn ab lay daawul Diallo lan moo nekk sa réaction bu tànnoon Abdoulaye Daouda Diallo luy sa réaction waaw mais loolu jotagul te du ma ci wax <laughs> non man du ma wax ci lu jotu mais li ma la mën a wax mooy li jot sëkk jot ko mooy ne ñu tànn candidat benn bokk yaakaar candidat bi xam nga lan la xam nga lan mooy candidat bi na ko tànn wax ko <laughs> keneen ku nga xam ne gëmul la gëmul mu tànn Daouda li ngay wax ni ñu xam ne la li ngay def nii c'est grave li nga def c'est très grave <laughs> non li ngay def c'est très grave <laughs> yow munoo dénigrer le président sayute ko ma wax la profil ma ma la benn profil nga ne du ci wax kon yow li ngay wax est-ce gëm nga ko dama ne la ban président lañ sani est-ce que li ngay wax nii gëm nga ko li ma la wax c'est clair Benno Bokk Yaakaar nañ joxe candidat bi mënuñu ko joxee mais Benno Bokk Yaakaar mënuñ joxe candidat parce que le président moom moo leen di tànnal. moo ñi dama ne moo leen di tànnal. mais na ko tànn. waaw bu leen tànnalee Abdoulaye Daouda Diallo wax lan ngeen lan mooy. teg sa réaction bu Abdoulaye Daouda Diallo. waaw lu tax loolu mënoo ci wax. non non bu bu jotee dinaa la nga ñëw ma waxaat li ma wax la sama sama sama li ma ci xalaat aw ma ci mais li ma la mën a mooy ñoom ñuy réclamer ñoom waa APR yi réclamer candidat benn bokk yaakaar nañu toog da régler seen fecc da toog benn place gënuñoo légitime yeneen parti yi nekk benn bokk yaakaar gënuñoo légitime kenn parce que ñi nga naan ñoo ko fi tànn ñëpp. xam nga lii sa dàq xaj mën na ci xaj. ñu dàq ma dëgg ma wóor. waaw ah. damay nangu xam nga lii sa dàq maa sama xalaat damay nangu. xam nga lii sa dàq. non mën na cee mën na cee nekk. maa wax sama xalaat damay nangu. ndax ki nga àndal. bañ ko laajee récemment def ne du ci wax. tant que président bi waxul. waaw yow nga génn def sortie bi. waaw ba xam nga ni lii sa dàq mën na cee nekk. moom en tant président parti su ma euh, parti bi bu euh, parti bi dajaloo. ne daaw de caab dàq nañ ko dama koy nangu waaye du ma tey wax sama xalaat. kon da jël see responsabilités. maa ko jël entièrement. ndax da bëgg ñu dàq la. dama bëgg. <laughs> ndax da ngaa bëgg ñu dàq la ndax ni ngay waxee nii dafa mel dañu on sous-entend que yow da nga bëgg ñu dàq la. man je suis toujours toujours dans la mission de dëgg moo wóoru. ndax da ngaa bëgg ñu dàq la. non non dàq lan. ndax da bëgg ndax da ngaa bëgg dafa dafa am ñeneen ñooy waxal ci suuf wala. ñu may waxal ñan. ndax dafa am ñeneen ñooy waxal ci suuf. waaw mais fay foofu da nga taxaw seetlu peut-être wax ji mën na bari man yàgg nañ ma yàgg nañ ma kotuwaayu yàgg nañ ma songu. Mhm. pour dëgg moom ah voilà. lu nekk ñu wax ko. Mhm. mais man benn gëm-gëm laa am benn vision laa am su ma demee ba noppee gëm démarche la notre leader moo noppee ba noppee gëm parti bi nu muy doxee du xaar ñu dàq ma maay woote génn. looy tëjee sa kàddu. non li ñuy tëjee mooy euh, di ñaan Sénégal yàlla dolli fi jàmm ah. parce que loolu waaye mën a wax si am réew bu amul jàmm doo am jotu toog fii naan da ngay def émission yi. am réew bu amul jàmm kenn du am jotu lenn ñu daara sax du jàngale ji alxuraan. tout à fait imam bay jiite jàkka ja sax pour mu dem xel ma du dal. Mhm. dañuy ñaan yàlla réew mi am jàmm. Mhm. mais di lancé appel le président Macky Sall. Mhm. ne ko nañu wax suñu candidat. fekkee mënu ko na taxaw seetaan. fekkee mënu ko na taxaw seetaan. mbër mu nekk sàjj ku mën gañe ku mën gañe am na leneen li may tëjee mooy waxuma la ko ci li affaire xalifa Sall ak Karim Wade d'accorduma lan nga d'accordul no mënoo jàpp ay nit ne dañoo sàcc dañoo lii ñu jàpp leen ay milliards ñun askan bi ñuy fay ay impôts di fay ay tax buñ jëndee buñ jëndee dërëmu xorom sax ñu dagg ci taxe nga xëy xëy ne ñoom dañ leen di baal ci ban base kon yow li ma la doon wax mooy ñoot mais ci ban base loolu amul da ngay remettre président bi. non dama ne man loolu moo ma jaaxal dafa mel ni dafa mel ni nag yow. Euh, gis naa ni gis naa ni daal. léegi nag li ma la mën a wax mooy askan bi. waaw yaa ngi daw question boobu. ndaw yi nañ dellu si seen xel ndax émission bi yaa ko jaana ndaw yi nañ delloo si seen xel delloo seen xel da xam ne yàlla mi ngi fépp. Mhm. yàlla ba nekk États-Unis nekk bitim réew mooy yàlla ji nekk Sénégal. Mhm. yàlla jooju mën na ñëw dimbali buñ buñ góorgóorloo Sénégal yàlla jàppale ñu. Mhm. loolu daal lay ñaan ndaw yi di ñaan yàlla aussi lii ñu taxawal nekk ci benn combat muy ASEP war caa jëm. Mhm. mu nekk xeex bu metti ñaan yàlla yàlla may ñu ci réussite. Mhm. ba mu nekk njiglaayu Sénégal gépp di leen gërëm yow en tant que journaliste Ibrahima Faye ak sa junior caméraman bi ak mhm. euh, monsieur Manick Sène mi nga xam ne mooy secrétaire général association bi mhm. euh, vraiment je suis très content ci mhm. bi ngeen ma seetsee ñu def bi interview di leen ñaanal yàlla aussi seen site bi dem ba nekk ay télé télé télé Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te